وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها المسلمون قال الله تعالى في القرآن الجليل القرآن الكريم أصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون ين بقي ين صبي مانجي سيارة maa ngi fa mu manti nekk ci àdduna dellu di ñaanal suñu mbokk jiitu alaxira yal ni yàlla may leen àjjana ma bëgg a sànni ay quelque kàddu rekk ci société bi mooy mboolo mi li ma leen nar a wax xam naa ne xam ngeen ko waaye fàttaliku la waxoon naa leen keroog ne yéen yépp gàcca ngalama ma jóg ngeen taxaw comme nit bi yàlla génne seytaan yi ci kaw bopp réew mi waaye dafa mel ni bi ñu demee dafa am ñoo xam ne ñii dañu kontaanul waaye kun fa yakun yàlla rekk moo ko moo moo ko man ndax ñi ñu jiital toogaguñu sax wax walla ñu commencé liggéey léegi du ñu mën a def lépp une fois ci benn weer wala ñaari weer waaye doomu aadama yàkkamte rekk dafa yàkkamte te yàkkamte ci lañu ko bind moo tax fu mu toll mu ngi yàkkamte boroom xel yi nag ñoo mën a mattali yeneen yi yeneen kàddu yi léegi Seydi Ousmane Sonko ak frère mbokkam mi xaritam di Seydi Bassirou Diomaye ñoom ñaar yoruñu bâton boo xam ne bii dafa mel ni yetu nabiyulaay Muusa nga xam ne bu doore rekk mu dal di sotti ndax bato boobule bâton boobule mooy yet moo ëpp àdduna yàlla boole ci kun fa yakunu kon nag ñaar ñi nañu taxaw jëm leen dimbali ñu mën a matal seen yéene ak seen mébét ga yéen nag xam naa lu leen di mitti fi ma ko xamee duma ma nelaw guddi duma yendu ku téléphone yi ku nekk di ñaxtu tonton def nañu li def nañu lale jomay dem na fii dem na fale dem na fale yooyu ñaxtu yépp nañu wakkirlu ci yàlla ñu jëm ko fàtte dafa am loo xam ne lii aada la ci biir Sénégal waaye nag du farata moy ne la jëkk indépendance sëriñ yi surtout sëriñu Sénégal dañu compter seen bopp comme buur ñu bari ci ñoom waaye am ñu ñëwoon bokk ci ñu bañ loolu le ci ñi ma ci fàttaliku te fekke seen jamono comme moom ni sëriñ Fàllu ak ñoom sëriñ Habib Habib ak ñoom sëriñ borom daara ji ak seen kilifa Abdul Aziz Dabaax wa xayruhum ak ñu mel noonale dañu daan lànk di bañ lu yàq jomay bu ñu jógee di seeti sëriñ yi Diomaye xam na ne liggéeyu dëkk bi du ko teg ci loolu le usmaan Ousmane amaguñu at yu bari waaye nag alhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla xepp te dolli sëriñ nag bu yaakaar na loolu nag mooy nguur ba tax muy nar ci bàkku ku ñàkk fulla ñàkk fayda waaw aada bi nga xam moo fi nekkoon nag moom lay jomay di def waaye mbiram yëpp wekku ci loolu le wekku ko ci Ousmane xam na ñi ko doon jàppale ak ñi ko jàppalewul bu leen ko waxee bu ko waxul xanaa da ngeen yaakaar ne moom dof la xana da ngeen yaakaar ne amul xel doful mu ngi ànd ak xelam ànd ak ruwaam nekk njaccaar ñi ko doon xeex dem bu ñu walbatikoo tey dekk ko loxo kooku gàcce la ñoo ngay reexalu seen bopp te yëgguñu ko waaw def lu bon ba pare si siwaat na di ko foot di ko raxas lu ñu mën a wax cëm lañu la mën a wax waaw dégg naa Cheikh Ahmed Tidiane Sy di ko wax magub jëmm bu toogee di la door yet bi nga jëkk ko yet bi nga sànni yet bi ñëw sukk ci kanam di ko nuyu di ko siyaara bu gàcc doon rey Sénégal ñu bari deex nañu ca tey waaye nag yàlla ni yàlla dolli sutura ñu bari ñu ngi ñaxtu ci yeen ndax ñi ngeen doon xeexal demb barki demb ñoom la ndeysaan ñu baax ñii di siyaara di leen seeti ma ne ci galon yi yàlla di takke takkal nit dina ko takkal ñaar ñii ndax lu nekk def nañu leen ko nar leen fàggaagal am ñu kompaloo ci gannaaw ñooñu tey jii tiitoon nañu waaye bu ñu demee di leen seetsi si di leen siyaara rus nañu gàcce tegu na ci seen kaw kon yéen di ñaxtu bàyyi leen ñaxtu bi ngir yàlla ngeen xam ne jomay Seydi usmaan Al Karim du wor kenn du leen wor mukk Macky def na lu nekk pour faagagal ñi du ñoom rekk waaye bu ngeen fàttali ko bi ngeen nekk ci kaso bi lu ma leen daan wax yan waxtaan laa daan def di yónnee ci yéen yéen mbokk yu baax yi na ngeen préparé leen ngeen génn ngeen feetu xol bu set rek laa ko daan waxee da ngeen di génn féetu ci biti ci yàlla def na ko loolu am na yéen fii bi Amérique yéen fii bi Canada bi Brésil yéen fii bi nuwel calédonie yéen suma doom yi nekk ostarali mbokk yi Japon fu nekk Afrique Europe yéen ñëpp nañu man ko nekk benn bañ a teqali ko baadukum ala baadin ku nekk ci kaw moromam jàpp ko ñaari loxo ngir yàlla ki yonente yi ak ñu baax ñi ñu bañ a ñaxtu ñu xam ne yoon bi rafet na lii ngeen yaakaar du loolale lii ñu yaakaar du loolu aada bi du moo tax Ousmane jog du moo tax Diomaye jog bala ñu leen di fal fekk ñoo ngi jaamu yàlla di julli julli yu rafet fekk nañu nag benn aada ci Sénégal ndeysaan ndeysaan ku mel ni man nag aada yi du ma ko toppatoo waaw ndax ñu baax ña jaar nañu ci kaw suuf si te meluñu woon nii waaye nag li am solo mooy incha allahu dinañu liggéey réew mi bu baax a baax ñu mel ni man dañu war nekk ci gannaaw di joxe conseil conseil bi may jox ñaar ñu baax ñi ma tudde nu nooray ni ñaari lumière yii ñaari biddiw yii mooy ne dafa am ñu leen jege bokkoon ci noon yi di saaga di xeex ak seen waa yi leen jàppale ñoo ñooy jokk léegi nag di reex seen waa ñi doon xeex ci seen gannaaw am na ci ay ambassadeur am na ci ay consul ndeysaan ma profité saydir oustaz la askuru ismaka du ma wax sa tur yow saydir oustaz da nga ma ne arabisan yi ñu nomoon ci moyen orient ñu ngay jege Ousmane di reex di jema a wut bunt ye ñi nekkoon di xeexal Ousmane ak Jomay lu Ousmane ak Jomay xelaat ci ñoon dama leen wax nitu njàccaar njàccaar ngeen yore mooy Ousmane ak Jomay ñooñu yëpp ko àndoon ak Macky xam nañu leen xam nañu leen bu mer toog leen ci xaar def nañu komploog ay nit ñoo ñu di wax jéem a wax ci nopp usmaan nopp Diomaye xam nañu leen xam nañu seen tur jegewoon Macky trop nag te ñu xam leen Seydi Ousmane temps en am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee bu ñuy jaw di yàq dangay ngay wax ne xaaral ma woo ko waaj waay ma vérifier affaire bi doo toog ko gis day daw Cheikh Tidiane Sy noonu la doon def gaañi Cheikh Tidiane Sy boo daan ñëw ngay jaw maa ngi koy fàttaliku day toog mu ne ah li nga wax di rafet na kon xaaral ma woo ko pour ma jëm ko setantal rek waa ji jël dàllam daw Ousmane boobu caractère war ngeen ko am ku ñëw di jaw ci yeen rek ne di yàq diw wala diw ngeen ne xaaral ma woo ko dootu leen gis bukk ci seen kanam mane dama leen wax keroog ne am na yoo xam kenn du ko wax ci téléphone wala ci whatsapp waaye bu neexee yàlla dinañu waxante keroog di ngeen dara seen gémmeñ Yen, yen nyar, bes bu ñu leen nettalee ngeen dar seen gemmeñ dafa am ay wuyu spécial ay góor jigen di wax ci seen noppa ti ñu xam leen ñuy bandi international motax wa jasfora bi ñen ñi di bëgg yek seen bop nañu moytu te nit ki mbumu la gunga ba nga sori mu war a dellu nga jël xeer di ko sànni kompolo ak noon yi nga xam ne yi ñoo la doon sàkkal pexe man nag xam naa ne am na confiance ci total bu la ma leen bugg yàlla laa jëkk ak yonent ak population bi te ci wa population bi bi ngeen bokk ci population bi ngeen bokk malgré suma nit ngeen li ma leen di ñaanal yàlla ni yàlla jàppale leen dafa am ay melentaan ay fourmi yoo xam ne dugg ci seen wet di wax bu ngeen sàgganee rek ngeen yàqule ndax xam ñu leen dem ba barki dem ba

fan yi noppalikuuma ku nekk mu ngi woote di wax day na nag yéen suma gaañ yi Ousmane seen Ousmane la di seeni jomay duñ leen war mukk te man maa leen ko garanti total nag waaw total ñii bu ñu amoon jom du ñu jege Ousmane du ñu jege jomam jomay du ñu ko jege ñenn ñoo ngay muuru di jema reex-reexlu di mbam mbamlu man nak Cheikh Ousmane Pouye Tadjou ne ku provoquer yaakaar na di nga doyal motax ñom yonne nañu wax nañu Cheikh Ousmane noppil kuma ma ma def la lu bon ba may wuti xam-xam ba may wër bi fekk ku ne mo ngi farankuloo di xaar lan mooy ñëw ci sa baay nga lekk ko aw moon le temps wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bi sabri moom laa leen commencé loon jaa al xaqu wa zahaq al baatil in al baatila kaana sahuqan dëgg dikk na fenkat yëg pexeykat yëg nañu reculer nañu dellu gannaaw te bàyyi xale ñu liggéey te ñi continuer di saaga bi ñu yore nguur gi kenn du leen saaga ñoom kay ñooy saagante di sosalante ku yëngu ñu tëj la ci kaso bi bu ñu amoon jom du ñu jege ñaar ñi balaa la ci ñoom balaa musiba gaanuwaay ci kaw dara ba nga di ko lekkati mooy loola le lu def nañu ko xale yii fu ne toroxal nañu leen ko ñenn ñi toog di fecc ñenn ñi toog muuru xulli seen bot comme ibu mooy looy awsu billahi minkum laanatullahi aleykum waaw kon nag mbulen nek di ñaxtu siara yi di jomay di def ak Ousmane dañuy jema def rek jam ada jexna jexna li rek la ñu bëggoon a wax merewuma kenn nak ndax ku téléphone yi ak woote yi ak ñaxtu yi mag mat na bàyyi ci penc moo tax yéen bu ngeen ma wooyee du mer waaye maa leen garanti ni seen kanam lumière moo fa nekk ak jàmm ñu ñàkk jom ñi nag dem ba barki dem ba ñu doon pexeel jomay ak usmaan dañu ñàkk fulla ñàkk fayda te joxoñ naa leen yëgal naa ko nag bu ñu moytuwul bés bu mujahidina fi sabilillah la laquukum fi ayi makaanin nag laa ko wax bu ñu tas ak yéen rek àddina tukki bàyyi leen tooñ ku jàpp kar maamam na jàpp kar maamam yem ca te bàyyi ñi ngeen di tooñ ñu seen jàmm jàmm yàlla lañu kon nag suma dom yi suma xarit yi suma jarbat yi suma andando ñi suma mak yi suma rak yi jigen gor mak ak ndaw ma nga di siara. ki don sànni kaddu yu gatti yi moy Cheikh Ousmane Pouye tajuddin ndax ndeysan guddi duma nelaw ku telephone fu nek parce que air yi bokkuñu diggante Amérique temps bi dañu wuute Canada Brésil et cetera surtout Australie yooyu yëpp dañu wuute waxtu yi waaye nit ku nekk bu jëlee téléphone di ma woo di ñaxtu daf may mitti te ma xam ne erreur la yoo xam ne yéen yëgu leen ko ñaar ñii njaacaar lañu njaacaar waxu wolof la yaakaar li ci des xam ngeen ko kenn mënu leen nax kenn du leen nax Wow, wow, ku nekk nag di bàkku Ma tax diw falu ma tax diw melni. ni ngi fon comme ni ñuy noqe ñoom xam nañ dama leen jëppi ndax bu ma leen di dama leen gis ñu tuuti kon gaa ñu baax ñi ki doon wax ak yéen tey mooy Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine دين وحني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أراكم قريبا دو يا جماعة جان جفتي والسلام